recours bi Yewwi Askan Wi dugaloon dañu ko rejeté recours bi Gëm sa bopp dugaloon dañu ko rejeté recours bi Defar sa gox dugaloon dañu ko rejeté recours bi Wallu Sénégal dugaloon dañu ko rejeté recours bi Aar Sénégal dugaloon dañu ko rejeté yéen kaay gi di bi xëy tënk kàddu yi nee li nga xam ne ay recours la woon ñu daal di koy dugale ca conseil constitutionnel juróom-ñaari charge yi daan nañu rejeté recours yooyu yéen kaay gi nee na loolee nag la muy wundo mooy juróom-ñaari charge yi maanaam conseil constitutionnel dañoo daal di li nga xam ne moom la direction générale des élections waxoon kon mën nañ dañoo jàpp ne coalition Yewwi Askan Wi seen liste titulaire bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite du bokk ci élection yi waaye tamit mën nañu see jàppee ne ñi nga xam ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar seen liste suppléant yi du bokk ci élection yi yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na coalition Wallu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi niki démb kenn nañu ak taskatu xabaar yi Mamadou Lamine Diallo daan nay wax ñoom bu ñu gañee Assemblée nationale ana nan la ñu fas yéene doxale moom Diallo jéeri nee na nag bu coalition Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi gañee Assemblée nationale li ñuy njëkk a def mooy dindi mboolem loi yi nga xam xam ne dafay saax-saaxee di caxte-caxte sunu démocratie bi waaye tamit danañu fexe ba Macky Sall du jéem a présenté wu ci élection présidentielle 2024 yéen a kay gi di source ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na nag juróom-ñetti fan ci weeru juin bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la maanaam àllarba amul kenn koo xam ne mën na leen a tere ñu amal seen mobilisation sa place de l'Obélisque yéen a kay gi di Vox Populi moom njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na mobilisation bi nga xam ne ñoom jàpp nañu ko yàlla rek moo leen ko mën a tere ndax nag ajjuma ji nga xam ne moom la waroon nañoo amul mobilisation préfet nag tere leen leen ko ñoom ñu nekk ay républicain waaye nag bii ñëw bu ñu leen ko teree boobee nag danañu xam ne bési góor a koy bay maanaam duñ si bañ dara ñoom Ousmane Sonko daan nañuy woo mbooleem askanu Sénégal ngir nag ñu génn ci mobilisation bi nga xam ne nam nañu koo amale àllarba bi ñu dëgmal ca place de l'Obélisque Ousmane Sonko ne Macky Sall li mu nekkee ci réew mi loole la ñu xamul lan mooy ndayam mbooleem koo xam ne jàpp na adversaire am nga Macky Sall dina def daf ko yore ci réew mi di ko doxal te loolee baaxul ci réew mi te la koy firndeel mooy proposition de loi bi nga xam ne yóbbu nañ ko sa assemblée nationale ñu daal di koy gàntal gi ñu xëy fekk fa Habib Sy ne ne coalition wàllu Sénégal yeewu askan wi coalition la boo xam ne bu mel nii musuta am ci réew mi te nag démarré nañ nag maanaam njeexantalu Macky Sall ci bopp réew Sénégal coalition wàllu Sénégal ak yeewu commencé nañu ko yéene kaay gi di 24 heures coalition yeewu ak wàllu ñoom nag nee nañu lu toll ci téeméeri député moom la ñu bëgg ngir imposer Macky Sall cohabitation te nag ñoom Ousmane Sonko jàpp nañ loole lu mën a nekk la yéen kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall njiitul Union africaine ma nga woon ca diwaanu Russie doon waxtaan ak Poutine nee na ko nag crise alimentaire bi nga xam ne moo am jamono jii sonal na lool askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ci déndu Afrique moom njiitu réew mi di Macky Sall nee na mbooleem li nga xam ne lu jëm ci wàllum céréales la ñoom belee ak yu aju loole lépp Afrique mënatuñu ko ama rawatina nag li nga xam ne mooy engrais bi te yi jamono ji maanaam bay nañu Macky Sall nag loole la fa demoon doon lijjante en tout cas li am ba de Sall mbooleem li nga xam jëm na ci wàllum secteur alimentaire Macky Sall sàkku na ci Poutine ngir nag ñu daal di teggi yi ndax nag nee na ko Afrique ñoom ñoo ngi ci loro bu baax a baax yéen kaay gi di source nee na Macky Sall dafa demoon ca diwaanu Russie ngir nag doon plaider Afrique doon wax jafe-jafe nga xam ne Afrique am na ko ci guerre bi dox diggante Russie ak Ukraine yéen kaay gi di las xëy duñu xibaar ci lu jëm ci Covid 19 bi ak vaccin yi Sénégal dépensé na si lu toll ci quarante milliards yéen kaay gi di Vox Populi nee na hôpital Mame yi ñu génn fukk ak benn ne ñoo fa ñàkk seen bakkan am na ñaar ñoo xam ne njort nañu ne seen loxo laale nañu ci ku ci mel ni benn aide infirmière ak benn sage-femme ñoom ñaar am nañ ay retour de parquet yu baree bari waaye nag na nañu leen a jël def leen mandat dépôt maanaam yóbbu leen sa kasu ba yéen a kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu Cheikh bi mu demee ca Darfour doon fa dox tànki jàmm daan nay dellu ci Sénégal ni ki démb waaye nag daan nañu koy tertu tertu bu mucc ayib yaram daw na ni ki démb libération yéen a kaay xëy duñu xibaar naan ñu accueil bi nga xam ne moom la ñu jagle la Cheikh Mahi am solo lool ku def lu rëy am lu rëy journal bi ñu xëy fekk fa moom Cheikh Mahi Niass daat nay wax ne victoire bi mboolem tarixa yi ñoo ko moom yéen kay gi ñu xëy fekk fa Sadio Mané moom nag nee na dafay jóge Liverpool alhamdulilah moom Sadio Mané nee na sénégalais yu bare bari jamono ji dañoo bëgg ma jóge Liverpool te sénégalais yi lu ñu bëgg loolu laay defa yéen kay gi di Vox moom Sadio Mané nee na téeméer boo jël ci sénégalais yi juróom-ñaar fukk yëpp bëgg nañ ma jóge Liverpool maanaam 70 pour cent ci sénégalais yi dañoo bëgg man Sadio Mané ma jóge Liverpool